quotidien lu jëm ci wàllum infrastructure mu mel na njiitu réewum Sénégal nag jox na wàllam Kédougou Kédougou googee nag le soleil daal di def nag ci xëtam wu njëkk xam ne daanaka yeesal yi nga xamante ne nii fas yéene nañu ko faa indi nag ca Mako Kédougou Saraya Moussala di ay yoon yoo xamante ne nii rek toll na ci téeméer ak fanweer ak juróom-benn ci ay kilomètres yoon yooyee nag ñu ko yeesalaat bu ko defee mu daal di méngoog jamono loolee nag dina doon saafara ci jàmbat bu yàgg ak i jafe-jafe yoo xam ne askan wa ñu ngi ko doon jànkonteel ci jamono joojee nag nag yéenekaay bi di Le Quotidien daal di xëy ne fàng nag lépp lu jëm ci tournée économique bi nga xamante ne nii moom njiitu mi président Macky Sall ma ngi koy amal foofee ca diwaan bu Kédougou te nga xamante ne nii nag lépp dafa jëm ci nag indi ay yeesal saafara ci euh, dëkk dëkkaat yooyee nag lu jëm ci yokk wàllu courant bi waaye tamit nag fexe ba ñu daal di nag jot ci lépp loo xamante ne nii moom moo jëm ci wàllum euh, dundu geek jafe-jafe yi nga xamante nii moom la ñuy jànkonteel jamono joojee nag nga xam ne moom njiitu mi ma nga ca tournée foofee ca Kédougou nag ci Dakaaru avocat yi nga xam ne ñoom ñooy layool kii di Ousmane Sonko ña ngay nag joxar bi baaraam jëmale ko ci directeur général des élections Ousmane Sonko daal di amal ab citation euh, ñeel Thiendella Fall moom mi nga xamante ne nii rek dafa lank ngir jébbal leen li nga xamante ne moo di fiches yu parrainage yi jëm ci kookee nga xamante ni moo di maire Ziguinchor enquête nag di ko feelu ca wet ga di xam ne ne daal jamono ji nag ñoom ku jégi def nañu dank ngir fas yéene taxaw euh, su ko defee nag ñu daal di defante ak nguurug Sénégal jëm nag ci li muy faral di amal jëmale ko ci askan week eh, ñoom ñooñee fare ci kujje gi Benno Bokk Yaakaar jamono ji mu ngi ci pëccëxoo ginnaaw candidature bu Amadou baax yéenekaay bi moo ko xëy fësal Amadou Ba mi nga xam ne rek ñu ngi koy dal fii ak fële eh, kenn ku ca nekk di yëkkati kàddu jëmale ko ci moom di ko congu yéenekaay bi di Walf Quotidien di dellu siwaat nag ci kàddu yi nga xamante ni boobee ba tey mu ngi koy jot eh, ginnaaw bi ñu sampee nëndëm ngir mu bokk ci élection présidentielle yi lu jëm nag ci wote njiitu réew yooyee nag kii nga xamante ne moo di toll loolee nag mooy laaj bi nga xam ne vingt 24 heures daat na ko samp candidat boobee nag samp na ndëm ngir nag yooye jongante njiitu réew ci atum vingt 2024 di xam ne ne jamono ji nag lim bi mu yaakaaroon ngir am ko ci wàllu parrainage romb na koy wëy kon nag fi mu toll nii dafay daal di dem bàyyeeg ñi faree kujje gi su ko defee nag ñu daal di uh, wut ñoom it lu jëm ci wàllu parrainage yi bu ko defee nag ñu daal di fas yéene jàmmaarloog nguur gi fi ne loolee nag mooy kàddu yi nga xamante ne nii moom Déthié Fall daat na koo yëkkati bés bi le jour daal di amal waxtaan bu am solo ak ki nga xam ne rek moo di El Hadj Malick Gakou njiital grand parti mu jëm nag ci wàllu Sénat euh, seenub taxawaay waaye tamit nag tuxal gi ñuy wax jëm ci wàllum élection yi euh, fit réew mi Sonko ak lépp loo xamante ne nii rek moo soxal réew mi ni muy doxee moom El Hadj Malick yaatal na ko ci yëglekaay bi nga xamante ne nii rek moo di bés bi la jour jamono joojee nag ñuy wax ci Anta Babacar Ngom mi nga xamante ni moom it candidat la ci élection présidentielle yi ñu daal di koy teertu comme ni ñuy tertoo buur foofee nga xamante ni moo di ca Ziguinchor yéenekaay Sud Quotidien daal di xëy nag fësal ab nataalam bu ne fang ca université Cheikh Anta Diop bu ndakaaru melokaanam nag euh, gannaaw bi ñu euh, jàppee ne ab barabu jàngukaay la waaye fi mu toll nii nag mu ngi mel ni làmb ju sàjj euh, pëccëxoo gu ñu fa daal di nemmeeku ba tey ci yëglekaay yi L'As Quotidien nag daal di def ab taxaw seetlu nag ci li nga xamante ne nii mooy jafe-jafe yi nga xam ne nappkat yi ñu ngi koy am ci jamono ji lim bu toll ci téeméer ci ay nappkat fi mu toll nii nag ñi ngi ci guuta yéenekaay bi di réew mi quotidien dellu siwaat nag di ab lauréat bu prix euh, futuriste 04 d'architecte mu nekk ndaw lu ñu mën a roy ci moom jëm ci jéego yi nga xam ne mu ngi koy amal ci wàllum énergie renouvelable ci wàllu tàggat yaram la ñuy daal di àddu stade daal di xëy fësal fotop euh, ñaxate ak Koulibaly di ñaari défenseur yoo xam ne euh, fi mu toll nii nag mën nañoo dalal xelub ñii di gayndeyu Sénégal réew mi sport dellu si siwaat ci mondial bi nga xam ne rek ñu ko doon amal ci U17 yi lionceaux yi nag jamono jii di wane seen bopp bu baax a baax foofee bi ñu de finale